wa ala alihi wa saxaabatihi altahirin wa man tabiahum bi ila yowm ddin mbokki jullit yu tedd yi ci àddina bi yépp yéen ñépp ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di baat yu yàlla joxoon yonent bi pour mu jox ko xeet wi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru koor wu tedd wi di ñaan yàlla mu delloo ñu ko at yu bari mu fekk ñu fi ñuy ànd ak wér ak mën ak jaamu yàlla gu mu gërëm moom yàlla di fas yéene ci kàttanal yàlla sunu boroom ànd ak yéen ci fàttaliwanteeg yéen donte fàttewu leen ndax yàlla li mu bind bari na waaye da cee sélectionné ñaar muy nit ak jinne am lu mu leen dig muy aljanna ci ñi nga xam ne ñoo topp ay ndigalam waaye it safara ci ñi nga xam ne ñoo pivoté bañ li mu santaane moo tax bis lu muy tàng-tàng ak lu muy raglu-raglu ñaar rekk la fa yàlla di auditer di leen àtte mooy nit ak jinne ku ñoom yaa ngi mujj ci kuunu turaaban dangay dellu rekk nekk suuf ak li yàlla bind yépp nag suñ boroom dogal nit ak jinne dañoo dëgër bopp moo tax arab di leen tuddee ak saqalay ni ñaar ñu dëgër bopp ñi mbokk yi may déglu yàlla mboolem lu mu bind ci nit rekk ngay fekk ku ko weddi ak ci jinne waaye ba ci xobi garab yi ba ci xar yi dox ak bëy yi ak fas yi ak nag yi ba ci tabax yi taxaw immeuble yi ba ci oto yi daw avion yi naaw ñoom ñépp gëm nañ kenn yàlla gi wa in min shay'in illa yusabbihu moo tax xobu garab gi sax ci garab gi bu xëyee fàtte sàbbal yàlla kerek day wow daanu moo tax sunu boroom waxoon ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi ëpp na junniy at ak ñeenti téeméer ne taarifuuni qabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni fa kayfa fa kayfa taabuduuni xam leen ma man yàlla njëkk ngeen may jaamoo bu ngeen ma xamul ak ana nan ngeen may jaamoo yàlla nañu yàlla xam loo boppam sunu boroom ku ko xam di nga ko topp di ko bëgg di nga def ay ndigalam di nga teet ay tereem nit nag du def lu mu xamul mbokki julliti diine ji ñu nekk muy lislaam nga xam ne bi yàlla yónnee yonent bi jox ko ordre ba fii ma taxaw di wax ak yow muy diine ji valable ñu baal ñu ci yeneen diine yi ndax wa man yabtaxi gayra al islaami diinan fa lan yuqbala minhu te wa huwa fi l axirati min boobu moo ñu jàngal nuñ war a jaamoo yàlla moo ñu jàngal li xaram ak li dagan moo ñu jàngal li ñu war a téye ak li ñu war a bàyyi waaye ana kuy kooku muy sayiduna muhammad mooy ki nga xam ni bu ñëwutoon ci àddina nit ak jinne dañ fi nekk di yaata yumbe bu dee ñëwee ñépp dellu safara ndax moom mooy rahmatul umma mooy rahmatul mu'daad moo tax alquran noonu wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamiina yow yonent bi yónniwuma la lu dul nga yërmande ci peuple yi nga yërmande ci mbindeef yi te kat mbindeef lépp lu dul yàlla rek boroom xam-xam yi wax nañ ne mbindeef la kullama siwallaahi aalamun moo tax yonent bi ci nit ñi lañ ko yónni ak ci jinne yi ak ci rab yi ak ci lépp moo tax moom lépp la daan waxal sayiduna muhammad moomu laaj nañ ko góor gu ñuy wax seydil xaaji malik sëy ci tiwaawan mu ne rasulillahi boo ko xamut min kulli wasfin xamidin xaaza afaala tafdilin rajaul baraya yowma musdahami bàyyi sëriñ babacar si moo wax loolu mu ne jikko bu tedd bu rafet bu ñu gërëm bu ñu sant bu ñuy nattee nit xamal ne sommet bi ci la yonent yàlla muhammad toog ñu ne ko kooku mooy kan mu ne mooy yaakaaru mbindeef yi kerek bisub raj-raj loo ba mooy bis pénc bés bi nga xam ne bàyyi day dajeeg doomam du ko xàmme jëkkër dajeeg jabaram du ko xàmme nijaay dajeeg jarbaatam du ko xàmme te kenn ku nekk tiit ma yàlla di indi moo lay doy ndax jant bi tiim ñu dañu koy wàccee keroog ba mu tiim yuuru doomu aadama yi kere ngay gis bopp yi bopp yi bax yuur yi di toj bopp yi di explosé keroog ngay gis ñaq wuy fël ci óomu nit ñi am ñoo xam ne seen ñaq day mel ni géej ci ñoom day tàng ba nit ñi bëgg yàlla àtte ñiy dem safara dem safara dangay gis sax nit ñi wax ni yow yàlla àtteel tàng na métti na bu ko defee ñun ñëpp doonte safara la dem ñu dem safara benn yoon ndax lii safara ko gën a sedd te safara métti na kon bis lu tàng la yonentu boobu nag képp ku ko yaakaar ci bis booba doo sooy moo tax seydil xaaji malik waxoon ni min kulli wasfin xamidin xaaza afaala tafdilin rajaul baraya yowma musdahami ñu laajat beneen xam boroom xam-xam ci Sénégal muy ku ñu bari yaakaar mu xettali roox yu bari ay millions yu doomu dama yaakaar ko mu Cheikhul Xadim bàyyi Basiiroog Baara boroom Tuubaa Njaareem góor gi tawloo Moustapha caatloo Murtada ki teewoon fii ci waaxu Moussa Siri ci ndakaaru gannaaw ba nga xamee ne julli na ci kaw géej gi sëgg siggi jëw suuf nga xam ni lépp lum am nee na bëgg waa ji may waxtaane muy sayiduna muhammad sallallahu alayhi moo ko ko may muy sëñ bamba ñu ne ko kuy rasulillahi mu ne lam yabdu mislul mustafa muhammadi sirran wa jahran fii baraya samadi li ma leen mën a xamal ku mel ni kooka jigéen duutu ko jur ku mel ni kooka dootul feeñ ci àddina ci li nëbb ak ci lu feeñ kooku moom dong la moom képp la moom rekk la lam do ci yàlla moom rekk ko doon moo tax yonent bi fi mu toll ci yàlla kenn mënul ci concurrencer ak moom dafa am benn prophète bu ñuy tuddee yonent yàlla Muusa ñu bari xam nañ ko dafa pànkoon moom ku ñeme yàlla la Euh, Moussa dafa am bés mu wax yàlla ne ko yow da ngay def ségrégation suñu digganteeg yonent bi parce que ñun ay profet lañ Mouhamed prophète la ñoo nekk au même pied d'égalité ñun ñëpp ay prophète lañ te ñun gis nañu ne yow toujours yow yàlla da nga koy beral loxo yàlla ne ko Moussa teyal nga dal tey laa lay xamal loo musul xam yéen yonent yi yéenay def dara ngir man yàlla ma bég ci sama xol sedd ci donte yorul xol waaye man maay def pour yonent bi kontaan xolam sedd moo tax moo raw ñëpp moo toog ci maqaama bu ñu tuddee maqaamul xabibiya boroom xam-xam bu mag woyoon ko ne huwa alxabibu alladi turja shafaatuhu fi kulli hawlin min al ahwaali almuftahimi sëriñ tuubaa lépp lu mu am bëgg yonent bee ko ko may mahat mahabbati al muxtaaru sayiduna la wax hubbal magaani wal ahlina wal walada lépp mu tayle ko ngir yonent bi du doom du mbokkam deret du jarbaat du jabar kenn lépp yonent bee ko ko gënal kon bëgg yonent bi du am solo la dem na sax bay wax ne mooy secrétaire yonent bi yonent bee ko xool ci fóol bi tànnal ko boppam naan raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimahu wa abdallahi ñu laajaat beneen boroom xam-xam ci Sénégal ndeke lu mayam di rëy rëy rëy rëy bi la yaakaar buntu kër yonent bi la toog lu mu am yonentoo ko ko jox ni mu takkee ci àddina yonentoo ko taal yonent rek la yaakaar sa taalibeeb sayyiduna muhammad la mooy cheikh ibrahima ñas bàyyi borom faydu bu mag bi ki nga xam ne may bëbb la amee may gi mu am ci yàlla muy faydu laajoon naa ko taalibeem bu mag boo xam ne gumba la woon gisuloon te lu nit xam ci àddina rek am na xam-xam bu ëpp booba toogaale woon ko te mosula gis moo daan wax nii moom deret dafa dégg ne dafa xonq soow mu dégg ne dafa weex waaye gisu ci dara te lu nit di xam rek xam na ko muy Babacar Thiam gaañu na yal na ko yàlla jéggal dama ko mos a laaj luy faydu mu ne ma faydu mooy may goo xam ne fa muy jóge du fa jeex te fa jëm du fa doy loolu la yàlla jox Cheikh Ibrahima Niass Baye nga xam ne li ko yaakaar ci àddina bi ay millions la kenn xamut ni mu toll moom bañ ko laajee kuy Sayyiduna Muhammad dafa wax ni muhammadul mustafa awlaahu lmawlaahu kulla al ataaya wa adnaahu wa alaahu muhammad sallallahu alayhi wa ki yàlla tànn daal xam naa ni yàlla ko tànn bëggal ko boppam taf ko ci boppam lu mu yor moo ko ko jox kooku daal xam naa ne muy sayiduna muhammad te moo gënal yàlla ci mbindaa foonam yi moo tax est-ce que xam nga ni ñun bind gi ñu yàlla bind ñun nit ñi ak leneen lu dul nit ci àddina yàlla du ko bind pour defal ko yonent bi kado waaye yàlla moom bind yonent bi rek toog di ko xool doyoon na ko sëkk moo tax maam alxaaji malik bàyyi sëriñ babacar seeg cheikh alhaaji mansour bal xaw mi mu mag ma góor gi ci ndeysaan màndu ga góor gi ca ragal yàlla ga góor gi ca doylu ga góor gi ca dëddu àddina ga maam alhaaji malik pour wax la yàlla ji nekk ci moom te yàlla ku amul basira sa làmp basiira sa làmpu xol bu tàkkul doo ko mën a gis sa làmp xol bu fayee doo gis yàlla Seydil Hadji Malick nag làmp xolam dafa tàkkoon yàlla rek la doon dund yàlla la doon gis dafa dugg otoraay di tukki paasam jeex yeggul fa mu jëm apprenti bi ne ko wàccal mu wàcc ci digg àll bi te guddi la bu doon jamonoy tey ku mu dal da ngay wax ne yàqu naa tey tey la ma tey la ma gaynde yi di reere waaye mag ñi fuñ mos a wéete wéttali ko yàlla moo daloon yonent bi alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakada nujabaau sayiduna muhammad maam alaaji malik jël kaamilu alquran bi di jàng alif lam mim moo dàqoon baat imaamu makka bi ngay dégg muy jàng gaa di daanu Maodo naan alif lam mim dalika la rayba fihi hudan lil muttaqin ba dajeeg benn sàmm buy sàmm lu ma téeméeri nag Seydil Haaji Malick dajeeg moom sàmm bi di ko déglu ba yàgg njàng ma neex ca moom lool mu ne ko may naa la gétt gi seetlul ku ne ci àll am problème mu paas ñu may la valeuru ay millions Seydil Haaji Malick ca am yàlla ga mu ne ko aram na ci man ma jël ko ndax yàlla taxut nga di ko joxe baat bu neex bee tax nga di ko jël xool mag ñi ñoom dañ daan daw kaañ guy jur gaañ waaye ñun suñ jamonoy tey nañ dal ci kaañ rek donte day jur gaañit suñu yoon nekku ci kon mag ñi luñ mos a am luñ mën a am bëgg yonent bi moo leen ko mayoon boo demee ci Cheikh Saadu Abi nga xam ne mooy sëriñu xaadar yi biñ ko laajee kuy sayiduna muhammad dafa wax ne innal muraada min ijaadil xalqi ijaadu ahmada li fatqi ratqi ahlal maratibi shuhudu dhati tafaddulan li sayidi saadaati waaye yonent yàlla muhammad nekkul ñi gëm yàlla rek ñoo ko bëgg ñi gëm yàlla rek ñoo ko tagg te yonent bi képp ku ko tagg ci teeyu bakkan tagg ko ngir bëgg ko ëllëg dana taxaw garanti la biir safara yonent yàlla muhammad rek mooy jaam bu daan dund ci àddina ñu ñëw ne ko jibril ak lay eh, eh, jibril eh, jibril ñëw ne ko yàllaa lay nuyu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo taxaw wax ni aati baabal jannati yowma alqiyaama fa yaqulu alqaasin man anta fa aqulu ana muhammad fa yaqulu bi ko umirtu allah aftaxa li ahadin qablak eh, yonent bi wax na ne bis may njëkk a dox dem buntu aljanna bëgg a dugg bu ma ñëwee gardien bi ridwaan la tudd ki gardien aljanna ritwaan la tudd bokkul ak 19 gardien yi nekk safara te yàlla def na ndeysaan mbokk yi loolu dama koy maye bismillahi rahmaani rahim 19 lettres la 19 lettres yooyu moo tolloo ak 19 gardiens yi nekk biir safara mbokki jullit yi may teewlu ci àddina bi ci canal de communication bii di vingt 24 point net lii ma leen ko may ci xol bu sedd def ko addiya weeru koor yi def ko suukaru koor képp ku ko saxoo gannaaw julli yu juróom doo gis 19 gardiens yi nekk safara te boo leen gisul mooy doo dem safara aljana nga jëm bismillahi rahmaani rahim ngay jël di ko jàng dix-neuf fois par jour gannaaw julli juróom gu nekk boo ko defee doo gis euh, gardien yi nekk biir safara doo dugg safara yonent bi nee na bis penc damay ñëw bëgg a dem aljanna bu ma demee bay bëgg dugg gardien bi ne ma taxawal ma taxaw mu ne ma yow la kan ma ne ko man la ko ñuy wax Muhammad mu ne aha c'est bon yow mii lañ ma waxoon ni ma naa xaar ba nga ñëw balaa kennay dugg balaa maa jox kenn feu vert muy dugg aljanna yow Muhammad na nga dugg ba pare kenn du sunu waa ji kooku nag moom la àddina yépp yaakaar ñi ko gëm ñi ko gëmul ñépp moom lañ yaakaar sayyiduna Muhammad yàlla moom la bind waaye ngir boppam ngir terale ko boppam waaye lu mu bindati mi ngi ko bind ngir terale ko yonent yàlla muhammad moom la seydil xaaji malik wax ni wa maa xalaqa arrahmanu cheyan li nafsihi siwa sayid almahmudi wa huwa alxabibu kon kenn du yonent bi waaye kii àddina yëpp a ko bëgg àddina yëpp a ko def ci seen xol ñii jullit ñu dul julli ñii jullit ak ñu dul jullit ñépp a ko bëgg ndax day koo xam ne ku ko bëggut danga koo xamul tubaab bi ci seen bopp dinaa la fi tudd ñaar walla ñett ñoo xam ne julliwuñ joxewuñ azaka duñuy ñuy jullit yoruñ sax turu jullit waaye tagg nañ rasulillahi boo demee France ku ñuy wax Victor Hugo nee na Mohammed de l'islam et le plus grand homme que l'histoire n'ait jamais connu ñu foog ne fa lay yem mu ne déedéet boroom xam-xam yi àddina yépp ne tekk di ko déglu mu ne si sa profet de l'islam diriger aujourd'hui le monde il aurait pu résoudre tous nos problèmes actuels kon kenn du Sayyiduna Muhammad mu teg xalimaam am ku ñuy wax George Bernard Shaw euh, professeur de lettres bu mag la woon ci université bu Londres ci Angleterre waaye tàgg na Sayyiduna Muhammad donte gëmu ko mu ne si la grandeur du dessein la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois génies de l'homme. Qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne face à Mohammed de l'islam kenn ñemewu ko kenn tollawut ak Sayyiduna Mohammed bàyyi Fatimatu bàyyi Roqiyatu bàyyi euh, Zeynabu bàyyi Umu Kalsum ak Taayira Qasim ak Ibrahim yal nañu ko yàlla fayal kenn du moom euh, yonent bi tubaab yi dañ koy tagg bay tagg constitution éternelle bi ko yàlla jox muy alquran nga xam ni alquran aay yi ci nekk moo tolloog escalier aljanna 6666 aaya la alquran am escalier aljanna 6666 escalier la moo tax yow mi ko doon jàng di ko jëfandikoo ci àddina bu ëllëgee dañ naan la jàngal di yéeg waaw jàngal di yéeg ngay jàng di yéeg ba aaya bu mujj ba mu tollook e, e, aljana ji yonent bi di dëkk ëllëg muy fir si nga dugg nag jël sa appartement moo tax benn e, jàngkat ci ñoom muy Alphonse Lamartine bi muy tagg alquraan yonent bi dafa wax ne le Coran de Mohammed de par son accord par la raison et la sagesse s'étendra à l'avenir sur tout le monde entier ki bëgg ko rek mooy li wér bëgg ko rek mooy li am solo bëgg ko rek moo mën a xettali jaami yàlla yi moo tax suñu magi réew mii ñoom loolu lañ gisoon xam ne mooy li leen di jàppale xam ne mooy li nga xam ni mooy tax ñu mucc seen njaboot mucc fii ak fa nga xam ne fa la jëm yonentu boobu nag loolu lay duggee ci premier point bi may waxtaane muy wàllu jikko moo taxawoon ca makkatal mukarrama wala ca a munawara yëkkati ñaari loxoom yi ñaari baaraamam yi ne buistu ana wasaata ka haatayni yónni nañu ma fi ñu ma yónnee ma taxaw di wax ak yéen ak fi bis penc di taxawee mu ngi mel ni sama ñaari baaraam yi ni mu suutante mbokk yi gis ngeen ne ñaari baaraam yi lu euh, daanaka dañ doon tolloo te am nañu wax ci xukamaaw yi donte indi ci texte dina xaw a jafe ne yonent du tëdd ci biir suuf lu mat ñaari junni yi at te bis ci taxawul te fi mu ne yonent bi daanaka li mu def ci biir suuf si léegi tey mu jege ñaari junni yi at mi ngi tëdd ci biir suuf waaye terewul muy conduire àddina bi tubaanu amaluna yowmal xamiisu lahu wa yowmul isnayni fi istighfaari dil jurami moom dafa am lum waxoon dafa taxaw màkka ne innama buistu li utammima makaarimal axlaaq yónni nañu ma ngir ma ñëw tedd ngay jikku yi ma mottali ko lan mooy tedd ngay jikko tedd ngay jikko biñ ko ko laajee dafa waxoon ne taafu an man dalamaka tuuti man xaramaka wa tasilu man qataaka looloo jafe ci jamono ku la ku la tooñ mu leer àddina yépp ne moo la tooñ nga jéggal ko est-ce loolu mu ngi amati jamono yi ñu nekk waxuma sax nit ku la tooñ nga jéggal ko waaye ki la tooñ defu la ki la tooñul defu la dara moom ngay jël àddinaam yàqu ko noot ko ëpp ko doole kon jikko bu baax amatul ci àddina yonent bi ne deuxième bi mooy tooti man xaramaka ki nga xam ne bi mu amee di joxe di séddale pour nit ñi nekk na de très condition conditions yow daf laa xañ ngir bëgg nga yàqu yonent bi nee na yow boo amee jox ko njëkk koo jox loolu amatul tey boo amee teraanga sa mbokk yi nga war a gën a njëkk dimbali ñoom ngay laisser en rad bàyyi leen ñuy sonn di am problème ordonnance di dee comme ay weñ te bu ñu faatoo nga dikk ak sa nag wu rëy ne danga leen di dëjal te bi ñuy dund mënoo ci ñoom dara jamono ji waxuma la ku la xañ yow nga jox ko waaye boo amee sax war a dimbali doo dimbali kenn ñetteel bi mooy watasil man xataaka ki la dagg nga jokk ko mooy kii daf la gis ba yàgg daal say mbir waxatu ji dara mu eenal la bañ la dagg la completement du wax ak yow sa mbir dara safu ko mu ngi am ci àddina xëy rek tongoo nit te yonent bi nee na ñaari jullit bu ñu toogee tonguwante lu mat ñetti fan ñoom ñaar ku ci dee safara nga jëm da ngay gis ko xuloog nit sax au lieu que mu am humilité dem toogaat ak moom ne ko baal ma man ko dama juumoon du ko am waaye noonu la ñuy tongoo ci la ñuy dem ba xeex ba jamante ay jaasi ba far rayante ñoom ñaar ñëpp buñ dee dem safara moo tax jamono bii doomu aadama yi dañoo dem ba mel ni animaux yi wala sax animo yi tane leen ñaari wax yi ma wax yépp alquran indi woon na ko alquran day dem ba yàgg mu ni inhumu illa kal anaami nit ñi dañuy dema dema dem ba mel ni animo yi am feneen mu ñëwaat ne balhum adall waxuma sax mel gi ñu mel ni animaux yi mais animaux yi sax a leen tane parce que ki yàlla dogal muy ñëw xool ku mu bokkal ndey ak bàyyi attan koo jam paaka kooku fas a ko tane xar yee ko tane kooku nag yee ko tane te mu ngi am ki attana jàkkaarloog papam nan paa bi paa allemand la di ko saaga faalewu ko faalewul yaayam loolu am na ah, loolu mu ngi xew ci jamono te dafa bokk ci li nga xamante ni mooy yàqu jikko yi dafa bokk ci tamit ci li yàq jikko yi ci àddina bi mooy li ñuy tuddee fen fen dafa dem ba mel ni contraire bi fi mu toll moo ñëw mooy dafa mel ni fen moo dagan wax wax dëgg arab fi mu ni gaañi fen la ñuy reeree di ci ndékkee di ci di ci di ci njoganalu jëw moom fi mu ne ñaari nit ñu ànd buñ seenee keneen ñu ngi koy jëw ràmbaaj yàq diggante